الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي لا إلا الله لا الله تعالى عن صاحب القتم والكتم مولانا أبي العباس سيدي أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه وعن وارث سره حامل راية التربية والترقية مولانا أبي الإسحاق شيخ الإسلام الهادي إبراهيم ابن الشيخ الحاج عبد الله نزأ التجاني الكولخي رضي الله عنهم جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla mu gërëmal ñu te fayal ñu Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane al Sharif radiyallahu anhu waaye it ñu ñaan yàlla mu gërëmal ñu te fayal ñu suñ sëriñ Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahim Niass ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di ci jiital kilifa gi almuqaddam Cheikh Mouhamadou Saghir ñu ngi koy nuyu bu baax di jaar ci moom di nuyu mboolem koo xam ne teew nga ci jotaay bi ngay góor wala ngay jigéen di wax alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu yàlla mayee ñu teewaat fii ren beneen yoon gannaaw boo xam ne teewoon nañ fi ci at mi passé ngir taxawal ngoon gu mel nii di ko sante yàlla ci lan ci xéwal goo xam ne yàlla def ñu ko defal xéwal yi mooy lan yàlla tànn nañu def ñu nekk ay doom aadama ak teraanga yi nga xam ne moom la yàlla defal doom aadama yi waaye tim yàlla tànn ñu beneen yoon jëf ñu nekk ay jullit boole ñu ci xeetu yontu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye it mu tànnal ñu njiital tariqa boo xam ne sët la ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tim ndono la ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam te kenn loolu kenn werante waaye tim mu boole ñoog aji womate joo xam ne daf ñuy womat jëmee ñi ci yàlla waaye xamal ñu kan mooy Cheikh Mati Tijaan Cherif radiyallahu anhu xamal ñu kan mooy yontu bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw la mu ñu xamale yàlla loolu kat moo waral ñu sos ngoon gu mel nii ngir di ko sante yàlla ki ko sos nag mooy Cheikh moor Thiam gannaaw boo xam ne yàlla boole na kook tànnal ko sëriñ boo xam ne borom ngërmaande la li tax ñu ne borom ngërmaande la yàlla daf koo booleeg koo xam ne kenn werantewul ak wilaayatum kenn werantewul ak maandum kenn werantewul ak xam-xamam mu yar ko ba pare ci moom yebal ko fii dakaar mu fi yare yàlla boole ko moor mu di ko yar ba pare ci moom ba samp ko fii kooku tim taxawal bës bu mel nii ngir sante ko yàlla kon ñu ngi wax rek képp koo xam ne teew nga ci jotaay bi nga toog defaraat sa toogaay bu baax ndax at mi passé liñ fi jëlee woon ci ay njëriñ ci ak xam-xam mu ngi des ci suñu nopp ba léegi mu ngi des ci suñu xel waaye te mu ngi des ci suñu biir jëmm yi ñu di ko doxaale ba léegi kon ren dañ fee del siaar ngir ut li nga xam ne kat mooy ndollal ndollal googu nag moom lañuy xaar ci sëriñ bi mooy sa xiir di ko ñaanal yàlla tawfiix di ko ñaanal tim képp koo xam ne teew nga ci jotaay bi waaye comme niñ ko baaxooyee ci suñ jotaay yi pay balaa ñoo def dara dañuy barkeloo ak ayat alquran ubbee ko jotaay bi barkeloo ko bu ko defee ñu daal di continuer liggéey bi moor nag bés bi dafa am koo xam ne moom la ko jagleel tuddee ko te jiital ko ci ñi nga xam ne moom la ko tuddee muy sëriñam bi nga xam ne moo ko jàngal alquran muy sëriñ daara Souleymane Seck nekkoon ma dina Baye doon bokkoon ci yaram Seydi Aliou Cissé waaye ñu ngi profité ci loolu tim di ndokkeel mboolem njabootu Mawlana Seydi Ali Cissé nga xam ne tey jii mooy bésëb siyaaraam ñu ngi ñaan yàlla ziyaare boobu yal na ko yàlla nangu waaye ñu nit ñu ngi koy ziyaare fii ndax jotaay yépp benn jotaay la rek kon dañu jox doomam muy Cheikh Mouhamad Nazir Seck moo jàngal ñu ay ayat ak ay ayat ci alquranul karim ñu ubbee ko jotaay bi barkeeloo ko Cheikh Mouhamad Nazir bismillah tafadal استقاموا ثم استقاموا تتنصل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم torre ao ñu jàngee ko ko waaye laa xarwa foo dëkk Madina Baay kuy sa baay ñu ne Serigne Daara Souleymane Seck boo jàngee alquran ju mel nii de loolu wax dëgg yàlla sant yàlla la ñu ñaan yàlla yàlla saxal alquran ji ndax Baay radiyallahu anhu dafa ñaanoon ne yow yàlla yàlla nga def alquran mu nekk sa jekk yow ci daje bu màgg boobu léegi pour ñu bañ a gañee temps ndax mu ngi bëgg a guddi moor bi mu sosee bés bi dafa am ñoo xam ne ñoom la tànn tuddee leen ko tuddoon nañ ci léegi njabootu sëñ daara Souleymane Seck waaye bokk na ci ñu tuddee bës bi mooy njabootu maam Fatou Seen te bokk na ci ñu fi teew ku ñuy wax Bachirou Haaj ak Pape Tine ak Modou Tine waaye tim bokk na ci ñum tuddee bës bi mooy njabootu maam Cande Cendu Caam maam Cendu Caam waaye tim tuddee na ko muqaddam bu mag nekk koo xam ne liggéeykat la ci faydu Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu muy Cheikh Ousmane Konté danañ ko jox kàddu incha allah Cheikh Ousmane Konté at danañ ko jox kàddu gannaaw bu sëriñ bi defee muhaadaram ba pare bokk na ci ñu tuddee bés bi seex baay Ndiaye mu nekk ci Kaolack Jalañ waaye tim ak oustaz Baye Mbaye Guèye naka noonu tim Baye Fall Congaan ak ñang-ñang euh, wala njaga ñang ak Cheikh Youssoufa Guèye ñuy bokku na ci ñi nga xam ne tuddee nañ leen ko waaye tim ñi nga xam ne tim tuddee nañ leen ko te nekk ay jigéen woo mooy bokk na ci ku ñuy wax Mbooma Seck nekk ci France ak jigéen ñi nga xam ne ñoo leen tuddee barahamiste saxir saxiriste ñoom it tuddee nañ leen ko ñu nekk ay jigéen ñoo xam ne ci mbooloo mii lañ bokk waaye tam ñu ngi góorgóorlu di roy waxi seen sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moom mu waxoon ne yaa يا أيها النساء ساخمنا إلى نيل العلا أما بالأبدان فلا yéen jigéen ñi na ngeen rëj rëjloo ci sàkku kawe comme ni nga xam ne noonu lañ ko góor yi di defee waaye nag waxuma rëj rëjloo ak li nga xam ne kat mooy yaram kon ñooñu bokk nañ ci ñi nga xam ne ñu ngi góor góorlu di jéem a teg fépp foo xam ne góor ñi teg nañ fa seen tànk ci mbaax ci kawe ci ut lu baax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 وردي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعتفي بنظرة تأتي لنا بزفر mbokki السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam waaye ñoo ngi leen di ndokkeel kenn ku nekk ci yéen ci teewaayam ndax lu baax dañ ciy ndokkeel te toogaay bi toogaay la ñeel yàlla tabaraka wa taala te benn jotaay boo xam ne jaam bi daf koo toog muy ay waxtu ñuy tudd yàlla muy màggal yàlla loolu dafay bokk ci jotaay yi kaafara bàkkaar moolaana cheikh ibrahim dafa wax ne wa alaykum bi majalisul xayri fa inna majlisul xayri yukaffiru alf alf min majalisi suu mu ne maa ngi leen di dénk ngeen bëril jotaay yiw dafay dafa bëri sama loxo yi am solo ci tasaare waaye nag war ngeen di sóor micro yu bari yi xew léegi ngan di micro bu ko nit téyee nan lay waxee sena lool lool xam naa bu ngeen jógee ngeen gën cee liggéey eh, di wut ay micro yu ndaw te du sonal nit yal na leen yàlla fay ndax dangeen di tasaare lu baax eh, li ma doon ndokkeelee ñi teew benn waxi Cheikh Ibrahima boo xam ne dana yaakaarloo ñi teew ci jamono bii ñu nekk mu ne jotaay yiw dafay kaafa ay junni junni ñaawteef mu ne ka hiya kal majalis majalisul ulama billah wa majalisul wazifati wa majalisul zikri mu ne jotaayu borom xam-xam buy wax ci yàlla ak jotaay buñ lal yonenti sax dañ doon dox jëm ci yàlla inni zahibun ila rabbi sa yahdini ci yàlla ibrahima waxoon na jëm ci suma borom ngir ma kon dox ci yàlla jaam bi daf ko war di ittewoo ci jamono bu nekk ci waxtu wu nekk te suñu jotaay yi ñuy tudd wala ñu koy tuddee ziyaara wala ñu koy tuddee mawlid gàmmu waxtaan ya cay juddu dafa war a nekk loo xam ne doomi aadama bi dana ci yokkoo ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala kon yéen ñi teew loolu maa ngi leen ci ndokkeel jokk mbokk gi nga xam ne dox na seen diggal euh, cheikh mor tiam jamaalu diin ko tuddee démb na ko jamaalu sa taan bi dafa taru lépp nga taxaw rek na dama ko defal yàlla kon yow taaral nga diine mën na ko tuddee naa la jamaalu diin na barke boobu topp ko euh, su ko defee suñu jotaay mag ñi biñ koy tasaare ci réew mi dañ ko defoon école ngir nit ñi mën a yokk seen dox ak seen xam ci yàlla dem na nag ba léegi daanaka aada daf caa jël loo xam ne fàtte nañ sax li ko taxoon a jóg waaye laa kulli xaaleen du tee rek ñu koy jéema a dabaatal ak di fàttali nit ñi lan moo sabab mag ñi sosoon jotaay yi boroom xam-xam yi ak sëriñ si doon ci dajee ak seeni mbooloo pour waxtaan ak ñoom ci yàlla tabaraka wa taala maa ngi delloo ay nuyoo ci kilifa yi nga xam ne ñoo njëkk a yëkkati kàddu wax ci turu ñi nga xam ne dañ leen a parane jotaay bi di sëriñ fàllu mbàkke maa ngi koy delloo nuyoo di wax amin ci ñaan yi nga xam ne ñaanal nañu ko ñaanal ko mbooloo mi ñaanal ko cheikh mor thiam maa ngi rafetlu it kaddu yi nga xam ne wàcce fi ndax bi ma ko dégloo xam naa ne kuy toppatoo alliwaam la ci xam-xam te loolu dafa baax lool fi jamono toll ku ñuy wax ne danga bokk ci doomi sëriñ yi nga xam ne ay nit dañ leen di sopp di leen topp wax dëgg suñ déggee nga wax wax ji ñu yëg ne kii moo ngi waxee xam-xam dañuy xam ne kon kii la maamam nekkoon ba bind ay téere yàlla jaral ko loolu yonent bi jaral ko loolu ba yàlla may ko ci cër bu yaatu moom moo nga ca yoon woowu wax yi fi wax yépp wutal na ko ay delluwaay wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na wut delluwaay ci yonent bi lam bëgg a wax wax na na Cheikh Ahmadou Bamba nee na delloowaat nit ñi ca fa ko Cheikh Ahmad Bamba bind ne lii la wax ca téere sàngam wax na ci mbokk gi dimbale ko wax yonant bi wax jumla jum yëkkati rek wutal na ko lay ci waxi alquran walla ci waxi yonant bi sallallahu alayhi wa sallama ci wala ci waxi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu kon sëriñ bi Mbàkke kontaan nañ ci sa kàddu yi te loolu nag moo war a am ndax yu mel nii suy am ñu dégg ko di ko encouragé dafay tax doomi sëriñ yi ne ci kër yi te xamuñ dara jànguñ di wax delloo nit ñi ci wax yoo xam ne du am fenn fu mu dëkk loolu dafay daal di dëñ su ko defee ñi xam mën a wax mën a ommat nit ñi ñi xam buñ ommatee nit ñi réer dana wàññeeku diine yàlla ji képp ku ciy wax te delloo woon nit ñi ci kitaab ci téere alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp kuy wax ci mbiram te waxoo ci hadith yu wér yi nga xam ne dëppoo nañ ne wér na tarixa gaay yàlla yi képp ku ci wax te mag mu baax ma lam bindoon munoo caa delloo nit ña yow moom da ngay fooyee nit ñi moo tax sa wax ji boo waxee ne yoonu murit nee na wutal nga lay wax ji boo waxee lislaam nee na wutal nga wax ji ci xadis la dëkk wala ci alquran la dëkk kon waxee nga xam-xam ñoo ngi lay ndokkeel ci kàddu yooyu ñoo ngi ndokkeel suñ mbokk diin bi nga xam ne ku baax la kuñ xam la seede yim seede ci man loolu lu yàgg la maa ngi ko ciy ndokkeel waaye seen mbaax la rek ndax ñoom ñoo fi amoon fii xadaratu juma bu ànd ak waxtaan boobaak léegi war naa mat fukki at ndax loolu ay côté 2010 la wala ci côté yooyu Mm, yàlla wàcce xéewalu taw ñoom ñu ñeewantal ma ci yër invité giñ ma invité ah, ma ne leen mukk maak yéenay bokk xéewal gii di wàcc ci suñ kaw mu jël fa kàddu wax ne ñoo ngi ma ciy gërëm seen responsable moral comme ni mu ko waxee sëriñ Moustapha si ne dund nañoo ak moom xaal bu mel noonu ci jotaay bu nekkoon ak ñoom taw wàcc ñu ñeewantal seen kilifa waaye mun ne leen maay jiite combat bi comme ni mu ko waxee fii kon nag yéen ñu mayoon occasion boobu ñu bokk ak yéen xéewal googu ba loolu am ca mu neex ci xolam ba léegi mu téye ko di ñu ko gërëmee dëgg-dëgg loolu lu rafet la ginnaaw loolu ñoo ngi rafetlu sa yeneen kàddu yi nga xam ne tuur nga ko ci tànt bi ci xaqi mbokk loolu it rafetlu nañ ko ñoo ngi ñaan yàlla mu faylanteeg yéen ci kem mbaaxam ak ci kem yiw te dëgëral seen taxawaay ci diine ji ak ci école boobu nga nekk di fa liggéeyal diine ji yàlla gën la fa dimbale yàlla mën na loolu yàlla na ko def am na yeneen i kàddu waaye dañuy tënk mawdon bi rek ci fanweeri minute ndax dafa guddi ba pare suñu waxtaanee ba pare ñu jox Cheikh Ousmane Konté tidiane mi nga xam ne muqaddam Cheikh Ibrahim la suma xarit la suma soppe la borom xaal la borom jazbu la borom xam-xam la nim ko defee woon daaw ñu jox ko momit mu def ay taalix ci li nga xam ne moom lañ bëgg a wax te moor da koo fonk ba def ko parrain ci bësam bii waaye moom dafa moom bës bi ñaari yoon ndax sama digg ak moom rek da koo jox bës bi dolliwaat ci ni ko njaboot gi soppee taxawaayam ci pays bi euh, tax na waxtu wu nekk rek ñuy xeeñtu di ko bégal ak di sàkku di dajeeg moom yal na ko yàlla fay teewaayam bi cheikh Babacar Ngom egsi na léegi di muqaddam ci Mawlana cheikh Mouhamadul Aqib Ibrahim ñas dëkk ca Kaolack ca jaleñ waaye di yàlla defit mu bëri ay yëngatu Dakar ndax am na fi ay taalibe di yaatal liggéeyam ci faydu di ko defit ca kaw la ak ci yeneen i dëkk di suñu wëllëre di boroom xam-xam di ku baax di ku bëgg yàlla ku ñàkk kiñaan ci seedeel nit ay baax-baax teew na fi ñoo ngi koy ndokkeel ci xaal yooyu ko yàlla may yal na ko yàlla saxal maa ngi nuyu délégation yi ma fi fekk yépp nag waa kër sëñ daara Seck seen daara Souleymane Seck yal na ko yàlla dolli yërmande góor gu baax doomam ji jàngal xuraan Cheikh Mouhamad Nazir ñoo ngi koy nuyu di bég ci sa teewaay ndax dafay màndargaal lu bëree bëri ndax sa bàyyi kuñ fonkoon la ci Medina di nuyu al imam Cheikh Mouhamed Thiam mi nga xam ne suma xarit la suma wëllëre la waaye xaritu Cheikh Mor la ilimaan la xaafisul Qur'an la waaye jàngalekatu alxuraan la yàlla génne na ko mu dem ba Maroc jàng ji ñibbisi mooy ki yoroon microcentral bi jóge ca kër ma jabel kenn ci sëriñ yu mag yi ci fayda bi di alxaaji barham mu kër ma jabel radiallahu anhu moo ko yar defoon ko ilimaan ca jumaa jooju muy dimbalanteeg ayima ya fa nekk waaye joxoon ko daara jotaay bii rekk a tax mu jóge kër ma jabel ak ni mbiram taxawaayam diisee te na ko yàlla gën a àttanloo ñëw ngir dundal jotaay bi ci nii la ko defee woon daaw te buñ ko joxoon rek na ko defal waxtaan ci yàlla mën na fee togg mawdon boo xam ne léegi dana fi tuur xam-xam boo xam ne nit mun na cee yokkoo ci yàlla ñoo ngi lay gërëm di gërëm mbokk yi ma àndal yépp nag abba mi nga xam ne moo jiite protocole bi nga xam ne ñooy dimbalanteeg man ci fépp fu may dem ak sang Ibrahim Dia ak sang Moussa Diallo ak directeur Makhtar Diop ak euh, yeneen magi taalibe yi jëwrin yi nga xam ne jiitu nañ ci liggéey bi Cheikh Mass Ndaw ak Cheikh Youssoufa imam Mouhamadul Mansour Diop ak euh, abu bakar Gueye ñu gën koo xam ci oustaz Gueye bokk ci muxaddami xadara bi bokk ci parrain yi di boroom xam-xam ci boroom xam-xam yi nga xam ne ci xadara bi lañ bokk di jàngalekat yore daara jàngal ñu bari bëri feqal ya moo toog ci sama wet nii di muqaddam jotaay bee tax mu jóge ba Saalum ñëw fii ku miin Dakar la ku ku ku dund dakaar la waaye fekkoon na jamono yi moo ngi Saalum Cheikh Baye Congaan moom it muqaddam la ci xadara bi moo nga ca Mbuur di dund pays bi di ko yaatal di liggéeyal pays bi di borom xam-xam di ko bëgg yàlla di zikarkat moom it parrain la jotaay bii moo tax mu ñëw muqaddam la moom it mu ngi ca mbuur kenn la ci muqaddami xadara bi Cheikh Baye Ndiaye dafa am ngànt defe naa moo tax ñëwuñ ko moom it moo nga Kaolack boroom xam-xam la ci xale yi ñu la jox ko ndigal foofu ca Kaolack ñoo ñëpp nag Cheikh Mor daf leen a sagal ci bés bi nga xam ne ren mooy ñaareeli édition euh, mu fàggu ko ne moom daal dafa bëgg a joxe moom it participation ci yoon wi ci yoonu yàlla am bés bu muy woote jaami yàlla yi teew ñu dundal xol yi ci yàlla dundal xam-xam ci yàlla euh, yàlla na ko ci yàlla dooleel te nangu liggéey bi te barkeel ko innama yataqabbalu allahu min almuttaqin yàlla daal du nangu lu may ci ñu ragal yàlla jëf lu mu rafet rafet yàlla nangu ko rek la ñu wax euh, rabbana taqabal minna innaka anta samiu alim kon yàlla yàlla nangul la liggéey bi ak li nga ci sonn mbooleem ñi ci dugal seen loxo jàppale la ba nga mën a am logistique bi yëpp tànt beeg li ci aju ak gan yi loo leen teralee képp ku ci yëkkati ñaar dërëmam moo xam taalibe bu jokk ci yow la nga tarbiya ko yar ko moo xam sa wëllëre la bu la sopp di la ñaanloo yàlla ci ajoom moo xam sa dëkkandoo bu la dimbale la moo xam sa mbokk la bu la dimbale ndax jotaay ci yàlla dafa métti ñooñ ñëpp ñoo ngi leen di éene ci ñaan gi seeni aajo yàlla xam na ko yal na leen yàlla taxaw te fajal leen ko faj gu ànd ak jàmm ak sutura ak tawfiix maa ngi ndokkeel mada mi nga xam ne moo yor sécurité bi di dimbalanteeg ñun ba ñëwee ba léegi moom it euh, njaboot la ci xadara bi soppe la bokk ci kuréel gu mag guy yor sécurité ci pays bi maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko barke moom it ci boppam ak ci njabootam ci li muy sonn ci bàyyi maa ngi nuyu président yëpp président Amadou gis naa ko gis naa magi taalibe yëpp kat yi maa ngi di nuyu maa ngi leen di ndokkeel gis naa Mbay Jaw gis Seydi mor Gay Taqiyullah maa ngi koy nuyu euh, moom moo ñu togal fele ci diggante di ba di mom lañ ko dénk euh, teew na ci jotay bi euh, ak yenen mbokki taalibe yëpp loolu nak mo doon cianti yi nga xamne mën ta ñak ñu delo ko ñiñ fi fekk ah ñu dugg nak ci li nga xamne mo doon waxtaan wi waxtaan wi dañ ko bëgg teunk rek ci fanweeri minute incha allah bu ko yalla mayee kérok samedi dañu def conférence petit mbaaw ñu waxtaanoon ci ben aya bo xamne yalla daf ñu ci digal ne buñ ko fàtte mom yalla yalla daf ño digal ne buñ ko fàtte mu ne su ngeen ma fàttee ma fàtte loo leen seen bop yéen ba pare ngeen bok ci ñi nga xamne ay fasiq ngeen ñu seetlu nag fàtte yàlla googu dafa bëri lool ci jamono ñu jàpp na nag suñ jotaay yi daayira yi suñ jotaayu conférence yi war nañ ko organiser ba saa teewee ñu mën a am benn jàngat buñ jàngat ci aaya alxuraan wala ci hadis wala ci waxi Cheikh Ibrahima boo xam ne danañ ci mën a gindalikoo ñun ci lan lañ nekk ndax di dox nii rek di dund di dox di lekk di naan di xëy te doo isaab sa bopp ci xool yow ci lan nga nekk loolu dëgg-dëgg nit ñi war nañ daal di xoolaat seen bopp ndax niñ sooboo jëm ci yàlla baax na wala baaxul suñ sëriñ de nim sooboo jëm ci yàlla rafet na ba waxal boppam ne euh, waab saral misli saaira suluki wa jazbi wal ulumu fuyudu ndax sa ñaari bët gis na ku mel ni man bàyyi ci sama soobu jëm ci yàlla ak sama xam-xamu faydu bi ma amee mu ne ndax sa ñaari bët gis na ku mel ni man ci ni ma sóoboo jëm ci yàlla sóobuwaay bi mu sóobu jëm ci yàlla woo ci jaami yàlla yi ñu wuy si ko ba dëkk yu bari ci àdduna ay mboolooy mbooloo wuy si ko sóobuwaayam boobu dafay laaj ñun ñi ko topp ñuy xool ndax ñun sóobuwaay boobu ci lañ teg suñ tànk wala am na yeneen yu ñu gaar te yëguñ ko sóobuwaay boobu rafet na ba mu waxal boppam ne yonent bi sallallahu alayhi wa la topp ne bu doxee mu dox bu taxawee mu taxaw isa saara xayru naasi sirtu waraahu wa in qalla yawman fal masiru baidu kon soobuwaay bi rafet na yàlla tabaaraka wa dafa sant yonent bi sallallahu alayhi wa na ko del waare ci alquran ndax di waar nit ñi di waar way gëm yi dana leen jëriñ bu ñoom ñi gëm mu ne wa zakir fa inna zikra tanfaul muminin wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa li yacbuduni ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutcimuuna inna allaha huwa razaq zul huwati lmatin aaya boobu cosaan la ci bépp jotaay bu nit lal boroom xam-xam lal ci di waxtaan ci yàlla di waare aaya boobu ak yeneen ya ca ya ko nuru mooy balluwaayu muzaakar mooy fàttaliwante ci yàlla yàlla ba mu ne yonent bi fàttalil ci alxuraan ndax fàttali dana jëriñ woy gëm yi daf caa teg ne xamal ñu nag lan moo tax mu binduñu mu ne bindee fu ma nit ak jinne lu may ñu jaamu ma ndax jaamu googu li ko daggee ci Seydina Adama ba jamono di tukki amul mbindeef mu fi mus jaar lu may yàlla tëralal na la nan nga koy jaamoo sariya yiñ doon jaamoo yàlla dañoo gën a guddante yàlla di ko yokk di ko yokk ci jamono yonant bu nekk yonant bu fi mës a jaar te amee risaala ak nubuwa yàlla am na lum yokk ci sa shariatu ba egsi ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ki xat mu risaala mooy ki xat mu nubuwati sallallahu alayhi wa jaamu googu nag mu ne nammee fu ma ci yéen ci jaamu googu ngeen may jaamu ngir ngeen yokk ma wërsëg wala ngeen layal ma loolu moom waa jamono jii moomuñ wax jooju waaye nag ñoo ko moom bul fàtte ne alxuraan fi mu doon wàcc ñi gënoon a réer ci àdduna ba yaakaar na yàlla sax dafa am objet ci li leen di sant ci suuf soosu lañ nekkoon te mooy màkkatal mu karama réer ga dafa ëppoon moo tax yàlla doon wax ak ñoom wax yoo xamante ne waa jamono jii moom xam nañ ne euh, ku leen waarit séentuwuñ ne ñoom jaamu gi ñu jaamu yàlla day yokk yàlla mais aay bi ca ñam di dox ba tey ñooñu seen xel eggoon na ci bay wax yonente bi salaa sallam na ko ñun am nañ ñetti téeméeri yàlla yuñ teg ci suñ néeg bii te suñ aajo yi fajiwut nga ñuy woo ci benn yàlla rek xam nga ñooñu réer fa lañ tolloon moo tax yàlla tontu leen ne jaamu gi namuwuma ci ñu leyal ma namuwuma ci it wërsëg ndax man may borom kàttan gu magi yàlla digalaat yonente bi salaalaalihi wasalama ci suratul a'la mo feddili wat waare googo mune fa zakkir in nafaati zicre mune yonanti bi nanga waare ndax waare dana jëriñ fa zakkir in nafaati zicre waareel nit ñi ci alquran mune ndax waare boobu noonu dana leen jëriñ yàlla bàyyi waatu di digal yonant bi sal ai sallam na ko li may wàcce ci yow dee ci waar nit ñi mu waxaat ko ci suratul xaasiyati fa zakkir innama anta muzakkiru mu ne ko nanga waare naka yow de waarekat nga waaral nit ñi na xamal na yow sa mission mooy nga waar nit ñi moo tax képp ku lal jotaay ñu waxtaan ci yàlla yow danga dugg ci biir daawatu daawatullahi tabaraka wa bi ñu waxoon yonent bi ooteel jëm ci yàlla yow yaa ngi dundal waare googu ñu santoon yonent bi yaa ngi ci biir liggéey bu tedd noonu mbokk yi waare ci yàlla dafay waral jaam bi bañ a fàtte yàlla ndax bu waare bëree rek li ñu yàlla waxoon ci suratul xasri wala takunu kallazina nasu llaha fa anseehum anfusahum ulaayika humul faasiquuna bu leen bokk ci ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla yàlla fàtteloo leen seen bopp ñu bokk ci ñi nga xamante ne dañoo nekk génn topp kon bu waare bëree suba ngoon ñuy waare rajo yi di waare gàmmu yi di waare conférence yi di waare te waare yi tegu ci dëgg tegu ci njub tegu ci xam-xam kon li ñu yàlla mayandikuloo ne buñ bokk ci jaam yi ko fàtte mën naa am danañ mucc ci loolu ba dund jaam bi li ko yàlla nattal ci lim yi mu war a dund ci kaw suuf mën na koo dund ba ba muy dajeeg yàlla ci xaalu dee du ci am benn jamono bu muy fàtte yàlla kon njëriñal waare mungo yàlla waxut ma fàtte leen man yàlla ndax moom yàlla bokk na ci ay meloom fàtte bokk ci melo yàlla waaye yow mi fàtte yàlla bu doon nit ak nit daf naan la bi nga fàttee bi nga ma fàttee dama laa fàtte waaw woo ma lijjanti la waaye ci xàq yàlla du wax ne man yàlla ma fàtte leen de waaye ma fàtte loo leen seen bopp mooy nit ku dem ba boppam réer ko nit bu ko boppam réeree dootul amu suwaa ci dara dootul xam lu mu bëgg dootul xam fu mu jëm dootul am bip dafay dox rek comme nit ku gëlëm xamatoo yoon sa mémoire jaxasoo na sa xaal jaxasoo na xamatoo dara yow daal da nga xëy soo ba ngoon rek lu xaal bi laaj ci loolu nga nekk moo tax yàlla lépp luy tax nit bañ a fàtte yàlla rek jaam boobu moo ngi ci yoon mu ngi ci mille wu leer wi yonente bi salla yàlla waxaat ci beneen aaya wa fi wa fi anfusikum afala xanaa du ngeen xool seen bopp yéen yéen doomi aadama xool leen seen bopp yàlla parce que yonent salaa sallam dafa wax ne man arafa nafsahu arafa rabbahu képp koo xam ne xam nga sa bopp xam nga sa boroom ulama yi dañ ko firee ne boo xoolee sa bopp ci sa néew kàttan xool yàlla ci kàttanam xool sa bopp ci sa jëhliyatu sa réer xool yàlla ci xam-xamam xool sa bopp ci sa néew néew la lu ne lu ne nga néew la ko xool yàlla ci mëtam ci lu ne ñoom noonu lañ ko firee pour nga mën a xam màggaay yàlla tabaaraka wa taala waaye jaam bi daal yàlla nee na ko xoolal sa bopp xoolal sa bopp ci bind bi la yàlla bind xoolal sa bopp ci melo yi la yàlla melal xoolal sa bopp fi yàlla jaar ak yow loolu amaanaa da nga ci teewlu yàlla tabaaraka wa yàlla digal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sooratul suratul fi naka waskur rabbaka isa nasitta nanga fatuddu sa borom bu fekkee da nga fàtte te yonente salalah ai sallama dafay def intixaal al maqaal day tuxu ci ay barab mooy xaal bàyyi mu ne istixfaar bi yonent bi doon def juróom ñaar fukki yoon 70 fois yita 100 fois mu ne istixfaar boobu yonent bi maqaama yi muy yéeg dafay def taraqi yàlla ni yonent bi yàlla di màggee ci moom tey ci samedi bii mooy ëpp doole ni màggee woon ci moom démb ci àjjuma ji bu dimanche ni yàlla màggee ci moom mooy ëppaat doole samdem bu lëndee màggaay googu day multiplier waat mu ne dox boobu muy dox nag ci dundam moo tax xaal bu mu ci toll rek dafay tuubal yàlla ci xaalu démb bi dafay mel ni ne joxutoon yàlla xaqi rububiyyatoom ak xaqi uluhiyyatoom loolu mooy istixfaar waaye du istixfaaru amatu naas bët bi xool lu mu warta xool làmmiñ bi wax lu mu warta wax wala cër jëf lu mu warta jëf kooku ci amatu naas seen tuub day dugg ci biir daaira boobu def nga loo warta def wax nga loo warta wax nga éene tuub jégalu yàlla waaye ci xàq yonent bi sallallahu alayhi dafay màggal yàlla ci kaw màggal ci kaw màggal noonu la bàyyi firee istixfaar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jëfandikoo radiyallahu anhu yalla denk yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal ci benn kurel gu nekkoon ak yonent bi di ay talibem néewoon doole takkoo won jakka ji di tudd yalla yonent bi yalla jox ko ndigal nako kurel gogu nak nga and ak ñom buñ jangate aya bobu danañ ci fekk sikar bi tariikha tijaan di def suba ngon danañ ci fekk mbolo yi tudd yalla solo giñ leen wara jox farata gi ñu leen war a farataal ak ñi nekk ci xaal boobu yitte yi ñu leen war a jox ndax yàlla mooy jox yonant bi ndigal te yooyu yépp dafay feeñ ci biir aaya bi képp koo xam ne waarisal muhammad yi nga danga yeenu leeru yonant bi am ndigalal woo jaami ci yàlla yow aaya boobu war nga koo jëflanteeg ñi nga jamononteel teñ melowoo xaal boobu noonu aaya bi mu ngi ci sóoratul kahfi الله تبارك وتعالى دفعه ينتي منك واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالقدات والأسي يريدون وجهه ولا تعدو أيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطح من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً li tax may benn bennal aaya bi dañoo am méthode buñ jël léegi ci jàngkatu français yi nga xam ne dañuy topp waxtaan yi di topp baat yi ndànk par ndànk di mën a jàpp firi baat yi waaye di ci dox di xam numéro aaya yi loolu moo tax may jàngee aaya yi waaye du jànginu ku xamul alxuraan nag ñu xam ko ku xam alxuraan mooy wax waaye méthode kuy wàcc tollook nit ñi ñuy jël mbir yi moo tax ñu jàpp na ci darsu lañ nekk Euh, aaya bi yàlla dafa digal yonent bi na ko nanga nga muñal sa bakkan ba ànd ak gaay yooyu nga xam ne dañuy tudd seen boroom ci seeni suba ak seeni ngoon xam nga muñal sa bakkan Baay Ñas dafay wax mu ne muñ ba topp yàlla ak muñ ba bàyyi mooy yàlla mu ne ñaari muñ yi yépp muñ koy def mu ne waaye muñ ba bàyyi mooy yàlla moo ëpp doole muñ ba topp yàlla mu ne nax mooy yépp dafa lalu ci ay bànneex mu ne muñ ba jëm ci topp yàlla mu ne muñ ba bàyyi mooy yàlla moo ëpp doole mu ne teewut ñaari muñ yépp am na fay ndax inna allaha maa saabiriin yàllaa ngi ànd ak woy muñ yi te maayatu boobu yàlla wax maa ngi ànd ak woy muñ yi maayatu dimbale jaam bi la ndax yàlla am na ay àndoo yum wax ci alquran jaam yi dañ ko war a sëyul inna maal muttaqin yàlla mu ne maa ngi ànd ak way ragal yàlla yi inna allaha maa sabirin man yàlla maa ngi ànd ak woy muñ yi ah inna allaha la maal muxsinina man yàlla maa ngi ànd ak way rafetal yooyu ay xaal la ay comportement la yoo xam ne jaam bi benn bu mu ci am yàlla mu ne moo ngi ànd ak yow kon boo yokkee am ñetti xaal xaalu nekk kuy sellal yàlla xaalu nekk ku ragal yàlla te ragal yàlla ci xol lay nekk waaye xaalu nekk muñkat ci naqar yeeg yi yow lay sa موي mooy wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haysu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu inna allaha baaliqu amrihi xat ja'ala allahu li kulli shay'in xadara yàlla mu ne ñi ragal yàlla waxtu wu leen situation xat-xat ganasee man yàlla dinaa leen wutal ay bunt yu leen ci génne te dina len wërsëgal wërsëg buñ wu ton na dana len dikkal ku yàlla tegaate nag na ku wakkiilu ci yàlla na la yàlla doy ndax yàlla kuy mëtal mbiram la te mbir mu nekk daf ko wutal àpp loolu moo tax situation bu ganee nit ku ragalul yàlla daf cay lab daf cay lab waaye situation xat-xat du mu bu mën a doon mu traversé nit xat-xatu ñàkk la xat-xatu ay bor xat-xatu wéradi xat-xatu jafe-jafe jamono te xaal yii mu ngi sàmmoon teeg jaam bi na ko leer na yàlla mi traversé situation yooyu ba mu dugg ci dana ko ci génne ak succès dana ko ci génne ak ndam waaye du lab ci situation yooyu kon xaal yooyu yàlla ñu ko yàlla defal kon bu yàlla waxee yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci aaya bi na ko muñalal sa bopp ba fekk ji gaa yooyu di ci gën a yéeme nag ci ndigal li mooy yonante bi nag mooy sëriñu gaa yooyu ndax gaa yooyu la ñuy wax ahlul suffa yonante bi yàlla jox ndigal na ko muñalal sa bopp bay fréquenté gaa yooyu yonante bi mooy seen sëriñ kon sëriñ bu toog war naa mun a muñ di fekk ji taalibeem yooyu di tudd yàlla ci ay géew ndax ki yàlla yónni lañ wax na ko gaa yooyu nekkoon ca jumaa ja di tudd yàlla suba ngoon del muñal sa bopp yonent bi di fréquenté gaa yooyu. asalaamaaleykum sëñ bu la ma dagguma sëñ bi continué an la addiya sëñ bi <laughs> bi continué dagguma ñu yonent bi tegaat ci aaya bi ne yàlla tegaat ci aaya bi beneen sew sew nekkaat na ci aaya bi ànd ak teew gi ngay teew ci ñuy tudd yàlla ak suba ak ngoon nanga ko def nag ngir jëmmi yàlla mu ne nag na yuriduna wajhahu ñooñu nag seen tudd yàlla gi suba ngoon dañ koo def rek ngir jëmmi yàlla kon nga gis ne tudd yàlla yit euh, nga gis ne tudd yàlla def ko ngir jëmm yàlla moo ëpp doole ci jaam bi ndax xadisul xudsi bi yàllay wax ne ñi ittewoo tudd ma rek wëli sax di wax seen soxla man yàlla dinaa leen jox lu gën ñamay ñaan te moom moo digle ñaan yonent firil ñu ko mu wax ko ci aayaat yu bëree bari waaye ku dem ba sa tudd yàlla nekkatul sa digg ak yàlla aajo moo tax nga dikkal yàlla ci téye ismulaay laxzam di ko ñaan yàlla mu ne dinaa la jox aajo dinaa la jox lu gën ñi ñay ñaan moo tax aaya bi na ko ñooñu nag seen tudd yàlla dañ nekk ne yàlla rekk moo tax yàlla digalaat yonent bi ci aaya bi nag na ko wala taadu ay naaka anhum bul gëmm sa ñaari bët nag ci ñooñu maanaam ñooñu bu leen won ginnaaw mukk kuréel googu yàllaa ngi feddali ndigal li bu leen won ginnaaw bul damm say xef bul tëj sa ñaari bët ci ñii la digal na deel deel teew ci ñoom lu tax mu ne turiidu zinata alxayaati dunya ngir namm namm taaru àdduna xam nga bëri na ko woon ginnaaw tudd yàlla ak jëm ci yàlla fekk turiidu zinatul xayaatu dunya ay taaru addundu àdduna moo tax nga wan géewu yàlla yu ginnaaw leneen lu dul géewu yàlla rek ba nit wan yàlla ginnaaw ak fàttaliku yàlla ak def mu zaakar ci yàlla loolu taaru àdduna la mu ne ko nag bul dëddu ñooñu ak say bët deel teew ci ñoom waaye buleen leen dëddu tamit ngir taaru àdduna mu continue aay bi nag na ko wala tuti man axfal naa qalbahu an zikrina yow yenant bi bul topp nag ñi nga xam ne man ñun yàlla dañoo sàgganal seen xol loolu yéefaru màkk yi nga xam ne dañ doon ñëw di woo yonante bi naan ko bàyyi lii ngay def kaay ci ñun kaay ci suñu jotaay yi sang yi màkk yooyu ci ci jamonoy jaahiliya yàlla wax yonante bi salaa salaam na ko bul topp ñii nag nga xam ne man yàlla maa sàgganloo seeni xol ba léegi it nag nit ku nekk war naa taxaw ci bañ a topp nit koo xamante ne yàlla dafa sàgganloo xolam moom la ñoo alxaflatu walis tudd yàlla wa taba haweehu wa kaana amruhu furuta ba pare dañoo toq seen bànneexu bakkan ba pare nag dañoo ëppal ci seen mbir kon aaya boobu ay jàngale yu bëree ci nekk ay sew-sew yu bëree ci nekk ay naanuwaay yu bëree ci nekk yoo xam ne képp kuy dox ci aaya bi pour tabax sa dox ci yàlla aaya boobu rek mën nga cee liggéey ci ndigal yi yàlla digal yonante bi sallallahu alayhi wasallam ba yow nga defaraat sa dox defaraat sa toogin te doxin bi bu rafetee toogin bi rafet rek sa fay ci yàlla day bëri waaye da nga am ngërmaane yonent bi da nga am ngërmaane Cheikh Cheikh Ibrahima waaye da nga am ngërmaane beneen mag mu baax moo xamante ne moom nga àndal muy sa xutwatu ci lislaam kon étudiants yeeg jàngkat yi aaya bi moo ngi noonu mën ngeen cee liggéey lu bëri mooy wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bilqadaati wal asii yuriduuna wajhahu wala taadu aynaaka anhum turidu zinata alxayaati dunya wala tuti man axfalna qalbahu an zikrina wa tabaa haweehu wa kana amruhu furuta moom ci suratul kaafi ba ci ali imran yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam na ko rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ñaanal yàlla ne bu ñu rocci ci sa xol ginnaaw bu ñu yàlla jubalee ginnaaw bi la yàlla jubalee ñaanal yàlla bu mu rocci njub googu ci sa xol waa ñoo ngi tatagal monsieur le maire Bey ñoo ngi lay tatagal monsieur le maire egsi na léegi buñ paree ci waxtaan wi ñu jox ko cëram parce que mooy maireu jàmm euh, euh, gën Sicap Mbao marhaban monsieur le kon nga déggee ci ne am na xol yi amoon may ba pare ñu rocc ko banaa laa tusi xulubana ngele bul rocc suñu xol yi bax da is hadaytana ginnaaw bi nga ñu gindee bañ gindee ko bul rocc suñu xol yi ngëm googu noonu jullit bu nekk war naa ñaan loolu wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab na nanga ñu may may gu tukkee ci sa yërmande gi nag ndax yow yaay aji mayaakoon kooku moo ngi ci Ali Imran xol yooyu nag nga xam ne moom la yàlla digal yonante bi sallallahu alayhi wasallam na ko ñaanal ba bu ñu rocc ci seenuy xol te yonante bi lépp lum ñaan rek jullit ñu la ko ñaanal waaye yàlla moom la koy njëkk a sant pour ëllëg kenn du jombale sa bopp ñaan garanti moom yàlla wax na yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci xadisul qudsi inna allaha la yanzuru illa fi suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malukum yàlla xoolut jëm ci seen melokaan yii xool jëm ci seen alal li fi nekk mu ngi xool jëm ci seeni xol ak seeni jëf kon suñu melokaan yi ak suñu alal yàlla mun a xoolut jëm ci waaye li ci suñuy xol ak suñuy jëf mu mel ni xadiis ba waxoon innama al amalu bi niyaatin wa innama li kulli imrin ma nawa lépp mu ngi lalu ci ay éene jëf yépp mu ngi lalu ci ay éene waaye éene ak jëf ci lañuy tabax ci la ñuy fay boo eenee lu baax te jëfagoo ko ñu bind la tiyaaba boo eenee lu bon te jëfoo ko yàlla di la baal la éene bi ndax seytaane moo la ëpp doole kon éene yi ak jëf yi yàlla nee na loolu lay xool te suñu melokaan yooyu yàlla wax ne xoolu ko ah macha allah yaa oustaz jazakumullahu xayran moom xaal da koo jàpp ci waxtaan wi mu ne dafay laaj addiya yàlla dox nañu ci benn aaya ci suratul kaafiri الله الذي جعل جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين من من دفلنا لين من يلا ci kaw suuf ma saxalal leen suuf tàllalal leen ko saxalal leen suuf ma tabaxal leen asamaan ma melal leen fa axsana sawarakum melo bi gën a rafet laa leen melal yéen doomi aadama moo tax bàññees mu ne doomi aadama moo gën a rafet ci mbindeefu yàlla yi waaye yàlla li am ci mbindeef dafa bari mu ne yamut foofu mu ne man yàlla ma wërsëgal leen wërsëg wu teey mu ne zalikumullah kooku moo yàlla ki leen defal loolu mooy allah mooy seen borom fa tabaarakallahu rabbul alamina mu ne borom bi moo barke kon melokaan bu rafet bi yàlla defal doomi aadama bindu ko muy wax bind doomi aadama jox ko xel jox doomi aadama kàttan mu tàggatal ko li ci kaw ak li ci suuf comme ni mu ko waxee ci wala qad karam naa banni aadama wa xamalnaahum fi lbarri wa razaxnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasirin mi man tafdila loolu yëpp yàlla defal ko doomi aadama maa bind doomi aadama ma teral ko ma tàggatal ko li ne ci kaw suuf yëpp mooy mooy barru ma tàggatal ko li nekk ci kaw géej yépp ma sëggal ko war wërsëgu teey ma gënale ko ci li bëri ci lu ma bind ma gënale ko ci kaw loolu kon ni ma koy waxee rek zalikal insaan huwal mukarram bii doomi aadama kuñ teral la mu waxaat ci alquran ne laqad xalaqna al insana fi axsani taqwimin summa raddadnaahu asfala saafilin illa allazina amanu wa amilu salihat falahumu ajrun xayrun mamnun mu ne maa ngi giñ ca wa tiini wa zaytun wa tuuru sinin wa haazal baladil amin na ci wa tiin wa tuuru sinin wa haazal baladil amin dëkk biñ óolu bii te mooy makkatal mukarama ngiñ yooyu yëpp yàlla giiñ ci mbindeef yooyu bàyyi mu ne yàlla bu giiñee ci mbindeef daf lay prêteloo attention ci loolu mu giiñ yàlla sañ naa bind dara ba pare giiñ ci ngir doomi aadama yi bàyyi seen xel ci loolu mu giiñ lan lay giiñ mu ne man yàlla maa bind doomi aadama ci gën caa rafet ak melo doomi aadama rek moo mën a meloo melokaanu garab yi mun a meloo melokaanu bàyyi ma yi mun melokaanu njanaaw yi mun a meloo melokaanu montagne yeeg doj yi munoo a meloo meloo melokaanu jaar yi ak doj yi te juróomi xaal yi mbindeef yi yàlla yi génnuñ ci ku nekkut jamaa daat yi mooy garab yeeg li ci aju xayawaan yi mooy bàyyi na bàyyi ma moo tax doomi aadama li tax mun a nekk xalifa yàlla dafa bëri doomi aadama bu taxawee di julli lépp lu yàlla amal mu taxaw doomi aadama bi représenté na ko ci xaal boobu kooku di jaamoo yàlla wa in min in illaa yusabbihu bi xam hamdi rabbi bu doomi aadama bi rukoyee taxawee na lépp lu yàlla bind muy njanaaw te am ay ñeenti tànk bu doomi aadama siggee taxawee na lépp lu yàlla bind mu amee laaf di naaw bu doomi aadama sujjootee taxawee na lépp lu yàlla bind jëm bi di laal suuf bu doomi aadama toogee taxawee doj yeeg montagne yi juróomi xaal yi ci la yàlla taxawal mbindeef moo tax bàyyi mu ne doomi aadama bi meloom ñaan eewi jullit ñi ànd ak suñu aajo Cheikh Tidiane dafa ubbee benn lettre am mu ne fa lazi usikum bihi wa iyaaya al muhafaza al muhafazatu ala qawlihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ngeen wattu wax kii kii ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ngeen bàyyi wax yi xel te wattu ngeen ko mokkal mu ne yonent bi lan la wax salaasa munjiyaatun wa salaasa mulxika muxlikaatun salaasa munjiyaatun wa salaasa muxlikaatun mu ne ñett mucceekaay ngi nii ak ñett xalakookaay ngi nii ñett mbir yii mu day muccal doomi aadama bi mu waaye ñett mbir yi day alal doomi aadama mu fa amal munjiyaat mucceekaay yi luy di muccal doomi aadama li ci njëkk mu ne mooy ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb ragal yàlla ci boo wéetee ragal yàlla ci a nekk rek nga ci xol lay nekk mu ne firi bi gën a gàtt ci ragal yàlla mooy topp ndigal yàlla yi bàyyi tere mu ne ñaareel bi wa kalimatul xaq fi rida wal xadabi kàddu dëgg ci boo gërëmee ak boo mere lu jafe ci Sénégal boo kontaanee ci daal lan cey wax na nekk dëkk waaye boo meree ci daal lan cey wax na nekk dëkk te Baye Niass waxoon na ci yoonam mu ne nahnu naduuru ma al xaqi xaysu kaan mu ne ñun dañuy tourné ànd ak dëgg fu dëgg fee hadisu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam unsur ak unsur axaaka ma zalimun aw mazluman dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak suñ ko tooñee sa mbokk bu tooñee te nga leer na la daa tooñ sa cofeel ci moom sa yéene ci moom kooku leneen la waaye dëgg yàlla gi leeralal ko na ko mbokk ku la yéene laa ku la sopp laa waaye mbir mii ma dégg yaa juum yaa tooñ te loolu yàqul nag yow yéene ya nga am ci moom ak cofeel ya nga am ci moom lu jafe ci Sénégal kon Sénégal war na ko xam buñ ko tooñee mu leer na la dañ kaa tooñ dimbale ko ci ngeen fexe jot seen àq ca ka nga xamante ne moo ko amee àq kon boo kontaanee nga fexe ba wax waaye boo meree nga fexe na bul sos bul sosal nit ki bu ko fenal bu ko bu ko bu ko bu ko gaañ ci loo xam ne du dëgg moo tax ñaareel bi kon ci mucceekaay yi mooy wa kalimatul xaq fi rida wal xadib kàddu dëgg ci boo gërëmee ak kàddu dëgg ci boo meree ñetteel bi mooy wal qasdi fil ginaa wal faqri mooy nga équilibre ci boo omalee boo amee koom-koom nga équilibre ci ni ngay dépensé boo ñàkkee nga équilibre ci sa ñàkk googu ba doo wàcc sa bopp ba torox boo amee nga ne am naa sama dépense moom ci vingt mille francs sama dépense ci quatre mille sama dépense am ci cinq mille mais man borom alal laa damay dépense oo mille seen aaya aaya aaya ba wala tubasil ah ba inna inna mubazzirina kaanu min ixwaani sayaatin bu leen yàq yàqkat yi mbokku seytaane lañ yàlla moo ko wax gaspillé yàq nag bàyyi mu ne dafa am sew-sew dañ ko laaj ndax ku am alalam lépp mu teg ko lan am yëpp mu miiraat boppam def ko ci yoonu yàlla ba deseetul dara ndax loolu ak ci jël alalam xaaj genn wàll gi joxe ko ci yoonu yàlla ñaar yooyu nan lañ koy gisee ci sunna nga bàyyi waxoon na ne ku ma gën a dégg sunna amul ci kaw suuf ba muy wax ne alquran wali wali wali am na indi ñeel na ma say xëy ni ñaari sëy say xii fi zahiri alkitab wal sunna sama sëriñ bu feeñ mooy alquran ak sunna wa say xii fi baat ni seexu tijaani wala yu faariqu ni fi laqza du tàqoo man benn gendeem wala yujadu afqamu min nii fihima ba muy wax ci alquran ak sunna daf ne wala yujudu nekkul af xamu ku ma gën a comprendre fii himaa ñaar yi alquran ak sunna mun a amul ku ma ko gën a comprendre nekkul wala yujudu la biñ ko laajee loolu mu ne ah kay joxe sa alal ci yoonu yàlla ba mu jeex sax na ci sunna mu ne ah bàyyi bàyyi foo ñuy indi leen lay mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam woote na bës kan mooy liggéeyal yàlla ci seen alal ci xare bii ma yàlla jox ndigal nañ dem ñu jàmmaar loolu noonu yàlla ci ndigal yàlla mu ne Seydina ngir dundee ko njabootam genn wàll gi mu ne yonent bi lii maa ko participé ñu dimbale kooku ca xare mu ne Seydina Aboubacar ba mu ñëwee miiras boppam bàyyiwul këram dara luñ war a dépensé suba bàyyiwu ko lépp la it joxe yonent bi salaa salaam bi Omar ñëwee wax bi na ko Omar yàlla na yàlla nangu li nga joxe te yàlla na yàlla barkeel la fa des Aboubacar ñëw yonent bi na ko ah Aboubacar lu fa des mu ne ko ak yonentam de des ca kër dërëm bàyyiwu ma bàyyi mu ne yonent bi terewul Aboubacar lim def da ko koo nangul bàyyi mu ne boobu sax la Aboubacar nekk xalifa yonent bi ci taxawaay boobu mu ne parce que waa ji bala koo doon doo dese dara mu ne fii ak sa dox dox eggut ci deselatoo dara mu ne duñ la yéegal dëgg dëgg mu mën a nekk waari si waaj mu ne mu ne ñi mu ne sufiyanke yi ci bés boobu lañ xam ne Aboubacar bés ci la taxaw ci maqaama nekk dégg nga xilaafa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci la taxaw ci maqaama boobu ndax deseetu dara bu desee lu ma yàlla yonat luy sa fay lu ma yàlla yonat ah ginnaaw ga nag ñeneen waaye moo dëkk egg ci maqaaw boobu moo dëkk egg ci maqaama fanaaw boobu waaye kon mun a joxe sa alal ci yoonu yàlla ba dese woo loo dékkee dese woo loo añee mun a kon sax na ci sunna waaye joxe xaajib téye xaajib sax na ci sunna ku ne sa tolluwaay wal qasdi fil qina nga equilibre ci say dépenses tekki wut do tawal sa loxo ci yoonu yalla de mais dañuy bañ ngay fooyee am am yomb na nak ci jamono ji ñi alal dikkal ta lew ñi alal dikkal ta lew fooyee alal yomb na leen parce que alal bu la ta lew lewut te sa xol defalu mooy yàlla da lay yomb parce que bàyyi ñes mu ne alal yi dañuy ar seen bop bàyyi mu ne alal jul baax jul lew mu ne alal ji day ar bopam waxin la te bàyyi ko wax ne alal ji day xëcc mu ne day bëgg sa cër yi di jëm ci yàlla mu ne alal ju lew day xëcc di bëgg di daanu ci mooy yàlla ngeen seetloo ñi ëpp alal ci réew mi te te alal ji lew seetloo rek mooy yàlla ñu leen yombee góor ñeeg jigéen ñi yor alal te lew mooy yàlla ci wax ak jëf da leen a yomb wal faqri ak boo ñàkkee mais ñàkk l'islam wut nit ku ñàkk mu dem yalwaan lislaam terewul ku ña manqué cër ba mënoo liggéey mu dem yalwaan waaye ñàkk ba tax nga wàcce sa bopp ci niveau bi gën a suufe di fen am di toroxal sa bopp pour am loolu am na ñu ci toll loolu la xadis bi tere mais boo ñàkkee it sa waay lu mu ñàkk di métti métti amal équilibre tuuti terewuñ la nga ñaan a ji nangu na ñaan diine ji nangu na lekk yàllaa ñu ko ubbil ay buntu yu ñu jàpp ndal la nangu na nga yalwaan nangu na nga ñaan koo war a ñaan nangu na nga nga lekk dégg nangu na dégg nga nga nga nga yu bëri yoo xam ne nga yalwaan waaye daf ko organise nag daf ko organiser kon ku nekk ci tamit waxul la nga rëy rëy lu ko doo laaj koo war a laaj waaye tamit waxul na it nga egg ci niveau boo xam ne dépassé na niveau niveau nit ku yàlla teral loolu la xadis bi jàng kon ni ma ko waxee ci commencement waxtaan bi jàngkat yeeg gëstukat yi bëgg ñuy dellu ci baat yi ñett yi yonent wax ne mooy mucceekaay ci moo moo nekk noonu mun ji yaatu salaas moo nekk noonu bi ci njëkk mooy taqwallah fi sirri wal alaniyati wa kalimatil xaq fi rida wal xadabi wal qasdi fi lqina wal faqri ñetteel yi nga xam ne nag mooy xalak nit hmm? wa amal muhlikaatu salaasa ñett yi nga xam ne day alal nit mu ne fa suqul mutaa mooy koo xam ne dafa dafa topp ak nay nay ci xol la ne ku nay ba nayam tàllali yàlla ñu ci yàlla mosal ci jikko yi safara yi la waaye mu ne waaye mu ne yàlla dafa éemuti ci ci ci ñaari mbir mu ne yàlla mu ne dafa éemu ci jullit bu nay te mu ne jullit bu dee ci ngëm yàlla day dem àjjana te mu ne nay benn garab la bu sax ci safara bànqaas yi dafa génn ba génn safara di tàllal loxoom di woo woy nay yi daay leen jàpp mu ne yàlla éemuwaat ci effort bu tame effort mooy ku gëmut yàlla nanguloo yàlla ci kilif téefam ci yow uluhiyatoom nangu woo ko rububiyatoom nangu woo ko kooku la ñuy woo éefal gëmoo yàlla yonent bii ñu wàcce liñ ko jox gëmoo kooku la ñuy woo éefal waaye yàlla may ko nag wërsëg bi yàlla wàcce ci moom mu tawe ca lool te mu ne tap garab la bu sax ci àjjana ban garab la garab la bu sax ci àjjana banqaay sa dafa génn ba ci biti tàllal loxoom naan kaa leen defal mu ne yàlla nee na daal daa éemu ci loolu ndax éefal du dugg àjjana naa ngi tàllal garab gi naan ana ana ñu tàkk mu ne jullit du dugg safara te safaraa ngi tàllal bànqaasam naan yéen ñi nay kaay leen mu ne yàlla nag nee na daa éemu ci maanaam ci léebu yàlla yi la dara wallaahu masalan yooyu yàlla yi wax ci alquran pour wan nit ki jullit warta nay jullit warta nay yi alal nit nag moom la xadis bu ubbee dafa soqul mutaa mooy koo xam ne dafa nay ba toq nay yàlla ci yàlla musal bi mooy wa xawaa mut muttaba wa xawaa ak koo xam ne dafa topp ay bànneexu bakkanam maanaam bànneexu bakkan ci jàngale l'islam fuñ ko waxee te préciser wul ñu dëkku rek bànneex yu araam ya lañ wax waxuñ bànneexu dakkan yu yu ragal koo xam ne dafa topp bànneexu bakkanam te bakkan li ci gën a bari inna nafsan amaaratul bi suu lu ñaaw la lay digal ah moo tax topp bànneexu bakkan loolu day alal nit ñetteel ba wa ijaabul mar'i yi ra'yihi ak nit koo xam ne dafa yéem boppam nit ku naw yéem boppam nit koo xam ne daal moom dafa yéem boppam waaw oh man ku extraordinaire la quoi non oh man sama wax ji non oh man sama sama sama lii man sama kër gi man sama auto man man dal man dal bu extraordinaire la ci mbindee façon bi nit ñooñu am na yéem seen bopp mën a tiitaru dégg nga mën a xeeb nit ñi yooyu noonu képp ku nekk sa comportement ci da ngay alo yalla ci yàlla musal kon mbokk yi hadis boobu Cheikh Tidiane daf ko fonk ba ubbee ko ab waxam benn lettre ci jawahirul Maani ba pare na na ngeen ko wattu wattu ci yemul ci mokkal rek de mais nangeen ngeen bàyyi xel prêter attention ci yii ñu leen présenté ne mooy seen mucceekaay ak yii ñu leen présenté ne mooy fi ne ko mooy seen xal xal ah, xalakookaay mbokk yi loolu moo doon waxtaan bi loolu moo doon musaakar bi loolu moo doon fàttaliwaat bi ñoo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangu dars bi lépp loo xam ne manquel nañ ko ci ñaa ñàkk joxe àq waxtaan wi ci aaya ak hadis yi yàlla jéggal ñu ko te suñ yéene xam na ko mu nangul ñu ko te may ñu tawfiq ci zahir ak ci baati ñoo ngi gërëmaat beneen yoon kilifa yëpp di tatagal monsieur le maire euh, monsieur Aline Bey di responsable politique ci Pastef le Patriote ci wëllëre ci Cheikh Mor Thiam jamaalu diin waaye tamit di suñu wëllëre ci bëccëg rek ndax dama xaw a naajee ubbi lool wax nañ na ma taal na ko toom ñëw ngir saafonteen man ziyaaranteen man balaa ñoo egsi ci jotaay ma rafetlu ko lool xëy na su fekkoon ne teeloon naa yëg sax ne amoon na téene ak jour ne dana ma nuyu si doon na ma jaral ma programme ko mun koo tatagal mun koo dalal mun koo ndokkeeli tamit waaye yàlla dafa dogal mu am yéene rek nga xaaral ma njëkk a dem ziyaarante sëriñ bi balaa jotaay monsieur le maire kontaan naa ci ñëw ba mel ni na fekkoo ko jëmm zaayir ji waaye fekk nga ñu ko ndax yéene ji euh, ak euh, fonkel bi loolu waxtaan nañ euh, maa ngi lay delloo nuyoo bu baax di la tatagal di la souhaiter bonne continuation ci responsabilité bi nga xam ne askanu jàmmu gën si Kàbb Mbaaw nañ la nga am majorité absolue bu kenn contesté wut si phrase bu sori loolu dafay wane ne. population jàmm gën si Kambaaw ànd nañ ak yow mais ànd nañ ak seen coalition Yewwi Askan maa ngi ñaan yàlla yaakaar boobu population bi am ci yow yàlla ommat ci say loxo teg la ci liy jëriñ askan bi ci zahir ak ci baati te dimbale la ci doomi aadama rek munul waaye bu yàlla dimbalee rek da nga doxal politique boo xam ne ci jàmm gën si yëpp danañ yëg ay innovation yu yu am solo ci seen nekkin ci lépp loo xam ne dafa bokk ci prérogative u maire yi eh, yal na la ko yàlla defal maa ngi jàllale sama nuyoo ci yow di ko jëmee ci professeur Moustapha Sarré si suma wëlëre di sama soppe léegi rek mu ngi woote suma taalibe bi nga xam ne mooy directeur Makhtar ñoom ñaar ñoo bokk dëkk di Moustapha di di kilifaam ci parti bi di ko nemmeeku ndax sëriñ bi départ na xam ne tool yooyu yëpp feeñeel cofeeram euh, maa ngi yónnee nuyoo ndax amoon na yéene ngeen ànd teew waaye di ko jaarale ci yow mu jëm ci moom jaarale sama nuyoo ci yow mu jëm ci président Ousmane Sonko di parti Pastef koy ñaanal jàmm di ko ñaanal lépp di ko ñaanal mucc di ko ñaanal Mawlana Cheikh Ibrahim Niass alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla ngërmaane wàcc ci xalifaam boobu di Cheikh Ahmad Tidiane Serif di ñaan yàlla ngërmaane wàcc seen xalifa ñoom ñaar Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ginnaaw bi defee loolu ñu ngi wax yaa himmati cheikhi uxdur lana bi haza almucdari wa zaxsafi bi nazarati daati lana bi zafar di wax xasbuna allahu wa nicma alwakil ñu ngi nuyu sëriñ bi di ko sant bawalan bu baax moom la ñuy jiital ci sant gi ndax bu ñu yàlla tëbbee xaal ak cawarte bañ mën a dëgmal yàlla bañ am mbëggeel ci yàlla bañ am ak cawarte gu mat sëkk ci lu jëm ci yàlla dafa fekk ne gannaaw ba mu ñu cuubee ba mu ñu cuubee ndax sëriñ dafay mën a cuub nit comme ni cuubkat di def jël tisi boo xam ne dafa weex woon wala tisi boo xam ne dafa dem ba ràpp mu tëggaat ko defaraat ko te gis nga nam méttee ci bu koy tëggaat ginnaaw nga ko juubee ca tàngoorom yi jaar ak ak yet yooyu ñu koy dóor ak ba mu deesaat mooy maanaam sëñ bi fi jaar ak ñun loolu ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm ndax mbiri yàlla waaye maa ngi sant yàlla yàlla tànnal gi ma ko tànnal ndax kenn mënut a sa bopp sëriñ comme disaar kenn mënut a tànnal sa bopp waaye jur waaye yàlla tànnal ñu ko boole ñoom moom du ma ko fàtte mu waxtu tàkkusaan laa njëkk giseen ndeg man nga fekk ko mu laasim ba sóoru sama benn xarit bu ñu wax maara policier la léegi keroog mi ngi dajeeg sëñ bi ci aéroport Euh, ginnaaw bi ñu ci ay mbir ndax jaar nañ ci yu bëri ndax yàgg a bëgg yàlla ndax bi ñuy nekk ndaw sax daan nañ jàngi école fii di cadre ci mbir nekk ak yàlla gi ci am ak yàlla gi ba jekki-jekki xaal bi yóbbuñu foo xam ne suñu bopp bi dafay jaxasoo sax ba may daw sax bëgg a génn ci xaal boobu muy dikkal boobu maa ngi koy fàttali ci loolu na yóbbuñu ruugi di yëg yàlla ba kër yu bëri jaar nañ ko duñ tudd ay kër waaye fu jaar nañ yàlla yàlla sax doon nañ ndax lan bëgg yàlla ndax yaakaar ko fu nekk waaye yàlla moo dajeeg moom yàlla jooju ak li ma doon yëg foofu la ma leeree foofu laa ko xamee depuis boobu ba léegi nag laa te boobu léegi sigiw te loolu sëñ bi xam na baatin ndax ñun atteewuñ ci suñuy mbir ñun li ñuy doxee li ñuy jëf sax moo ko li ñuy wax li jëntuwuñ nag bu nit ñi jiite ko wala loolu ñun la ak suñu digganteeg boroom bi ndax ñu ngi yokk ci yàlla ak misaal yi ci yàlla di jox loolu nag moo ñuy may force bañ am fépp ginnaaw di jógee ci ndëggoom moom di taxawee ci moom simmeeku effacé wu moom mu nekk fa mu liggéey liggéey bi ñu taxawee taxawaayu lantinoor kese nga xam dañ koy jëfandikoo rek naq sa diw jiw boobu noonu moom mooy njëriñ mooy tey li fi am ni ñu def jotaay boo jàmm ci yàlla sëriñ ñëw xéewal tuuru fii ci cité ak li ko wër ay wullu yàlla yu mag ànd ak moom wër ko toog a moom nga xam ne seen nokki rek beneen affaire tawfeex boobu ñu ngi ciy sant yàlla di ko gërëmee sëñ kon ñu ngi gërëm euh, parrain Cheikh Ousmane Konté ak Tidiane nga xam ne yàlla kese ak bëgg gi bëgg Cheikh Tidiane sëriñ radiyallahu anhu nga xam ne aarif billaay bi ñu bi ñu jeexee ci bàyyi ku nekk dafa am nu jeexee ci bàyyi ñi dañuy jeexee ci bàyyi ci Seex Tijaan fekk ci bàyyi lañ jeex ñi jeexee ci bàyyi ci yónent fekk ci bàyyi lañ jeex ñi jeexee bàyyi ci bàyyi di doxee xaal yëpp waaw moom la rek ndax daxari bi moo wër foofu waaye li ko peeg nag peeg ko ñett di taxaw di di di di weccoo Isa Lande di feeñ bi mu ko neexee kon buñ amee loolu ñu koy gërëmee sëriñ Seydi yow Mawlaaya Cheikh Mamadou Salim Ndiaye di ko wax ne seq na suñu tànk te liggéey bi yaa ñu ko wax bu mu laal suuf incha allah ci kàttanu yàlla ak ci barke digal lool ci barke sa barke kàddu liggéey bi dootul laal suuf incha allah. te dinañ taaral taxawaay taxawaay boo xam ne dinañ taaral diine ji yaa ñu ko tudde nangu nañ te xam nañ sa kàddu li muy pesé ci pay yàlla waaw ñun du nanduwuñ sëriñ bi de waaw ñi toog man xam nañ lu ma ji lu may wax sax sëñ bi lu maa ngi koy sant ñu ngi jógee ba Thiès ñëw bi dëpp ci suba di sama wóllare di xarit ci Omar kay na ma ne suñ xamal ne ci moom la jaaree ba ñuy nemee konte yal na ko yàlla dimbali yàlla taxaw ko yàlla dimbali ko ci njabootam dimbali ko ci ay waajuram euh, sama ki yoon sama micro central bi Cheikh Mouhamad Thiam ziar naa la bu baax di ziare alxaaji babaam radiallahu anhu ci yow xam ne sa ànd looloon ci yàlla wóolu la dégg la juma ngay jiite naafil kuñ wóolu ku mokkalul quran lu la jiite loo naafil mu koy def ay ati at mu wóolu ko ñu séddale ay biyee ci kër yi mu tànn ko bàyyi lépp mu tànn ko bàyyi lépp bàyyi ñëpp daat koy jox saatu ko boobu biee boobu mu dem jàngi ñu formé ko ci wàllu imaamatu mu def fa ñaari ak nangam ba ñëwaat teew nekk fële kër ma jabel di mëlanteeg jaamu yàlla yi nekk ca rajo ba di def émission suba teel ginnaaw bu jullee fajar rek dana dem laaya biir mbokk yi ci yàlla ba nga xamee fàttali leen seen diine dañ gën a takkaa seeni xam ne mbir mi yàlla rek moo fi ne te moom lañu war a dund moom lañu war a mbir yi bu nekk ci raay ci ñun dañuy gis yàlla rek ci lépp ko dund ci lépp kon sëriñ bi ñu ngi jégalu Adama Siis tamit maa ngi koy sama gan yëpp ci moom lañ dal Adama Siis doom la ci maire Ndiaye di bàjjen ci sëriñ bi Mari Ndiaye maa ngi gërëm doomam ñi ñuy wax Adama Siis ndax bépp gan bu ma am rek falaa leen yóbbu woon mu leen doon toppatoo di leen ataayaal maa ngi woon ci baas bi amu jot waaye di def yitte ju am solo ju kawe ñu koy ñaanal yàlla yàlla dimbali ko te taxaw ko dimbali yaayam sëriñ bi mbir yaa ngi nii mbir la doon sant yàlla rek ci sa di sant yàlla ci feeñuwaay bi nga feeñ ci ñun xam nañ am na loo ñu feeñoo waaw yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla def ci sécu sécurité yal na yàlla sécurité loolu te di ko yokk te bu mu dajeeg lu koy lu ciy yal na ñu dimbali ci loolu. ñu ngi taxaw ci sa buntu di ñaan loolu sécurité ci barke secret hazal baladil amin loolu yàlla ñu ko yàlla defal xam nañ ne yëg-yëg yi ñu am yi ñuy tuuse ak cawarte gi ñu am ci yàlla xaal boobu bu ñu dara baarewul lépp lu ne di am ci yàlla dinañ ko insha allah xam nañ loolu waye pak pak yi bëri na ko yi bëri na feeñuwaay yi bëri na tëjjal yi mbir yi bëri na waye dimbal nañu sëriñ bi ñi taxaw ci sa buntu di wax ne mbooleem tëjjal yi ak feñu feeñuwaay ak feeñuwaay bu mëna doon yalla ñu may taw bañ man ko koo seppi dal ko ba xamé li ci wara def ak li ñu wara taw dàq ngi taxaw ci buntu di ñu nga ñaan loolu nga garanti ñu loolu ñaan ñu ko yalla gaalante ñu sëriñ bi lijaaba ci barke barke sa barke ci barke sa barke sëriñ yàlla may ñu lijaaba képp kuñ jëflante la bu ñëwee allahuma wala sa dërëm tege suñu loxo rek sa aaja faju képp ku ñu jox sa dërëm rek buñ ko soppandikoo ci lu mën a doon rek yàlla na aajam faju avant ñuy taaloo suñu loxo sax yàlla mën na ko sëriñ bi nga ñu ngi ñaan ku jot li ci yow ci yàlla ñaan nañu la ko kon Seydi Mohamed xamutuma sax lu ma la noonu jox sëñ mu ñaan ko soox alhamdulilah xasbuna allahu wa ni'mal wakil sama yaay ñëwoon na fi maa ngi doon fàtte tànk la kii mag la dafa dem ba sonn sànq lañ ko wutal taxi mu dem ñu ngi koy ñaanal yàlla sama rakk ñoom ñëpp ñëwoon nañ sama mag jugee na ba Touba ñëw mbokk yu bëri teew ñi fi jaar ñëpp ku lim juum monsieur le maire Moussa Fall monsieur le maire Bey tata Nogay Lam ñoo bokkal kër boobu ba léegi ñu fi toog ñun ñëpp ay jàmbaar lañ euh, daal sëriñ bi mbir yaa ngi noonu nga ñaanal leen yàlla yàlla defal leen barke defal leen tawfeex te dimbal leen yéen ngeen leen yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi Sidi Barhama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla